télévision Futur Média mbokk yi ñoo ngi dellu di leen nuyu di rafetlu seen ànd ak ñun fas yéene ànd ak yéen ci xibaaru timis yi la ca gën a fës bokk na ci. Boubacar Seye mi jiite ONG Horizon Sans Frontières wiirul dafa wopp jëlee nañu ko fa mu nekk ca kaso ba ñu ko denc yóbbu ko ca pavillon spécial bu hôpital de Dantec loole ki ko xamle moo di Souleymane Diallo mi amee kàddoom moom Souleymane teg ci ne loolee dafay firndeel ne Boubacar Seye njiital Horizon Sans euh, Frontières palaasam du ca euh, fi nga xamante ne ji moo di kaso ñeneen a ngi ñooñ seen dem kaso lu jege la ñeenti doomi aadama yu teg loxo ca diwaanu Mbour la ñu leen jàppee mi ngi jëm ci lii di mbirum euh, jaay suuf su tegawul ci yoon ak mbiri njublang loolee kon la ñu leen tege loxo di leen tuumal euh, mbirum escroquerie ak njuuj njaaj ba tax na kon ñi ngi ci wàllu yoon ñu tëye ci ab garde à vue coronavirus gi ak tolluwaay gi am na ñeenti doomi aadama yoo xamante ne ji ñàkk nañu seen bakkan ci 24 heures yi ñu génn bilan bi moo wax loole waxit yeneen ñetti téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom-ñett yu amee coronavirus ci jamono jooje ñu gis pëli sub Sénégal moom it soppiwu doxin bu weesoo jàppe gi ak di alamaan ñenn ñi ñi ngi wéy di séddalay masque ak di yee askan wi ci njariñal takk masque ak jëfe geste barrière yi lañ ci jublu bokk na ci gën a taxaw ci xeex bi ñuy xeex lii di coronavirus sagar di xeeñ ci géej gi sabab li moo di mooli gét ndar yi ñoo xajootul mooli ndakaaru yi ndax nee nañu dañu yàq seenub liggéey seeni caax ñu dagg seeni gaal ñu wëngeejal mu jur ay jafe-jafe yu mat sëkk ba tax ñuy sàkk ci gouvernement bi ñu àddu ci bale yëf yi di ëppi loxo des na ci ànd ak bi fay ci reportage ci xibaaru timis yi ci télévision Futur Média mbokk yi lii mooy li fi gën a fës ngeen taaxelu ñu ànd ta euh, faram fàcceel leen ko Boubacar Seye njiital Horizon Sans Frontières mi ñu tëyee ci kaso bi yóbbu nañ ko pavillon spécial bu hôpital Dantec ndax yaram wu sutante dafa wopp loolee ki ko xamle moo di Souleymane Diallo mi amee kàddoom mu teg ci ne dafay firndeel ne rek kaso ba ñu ko teñ do palaasam moom Boubacar Seye kàddu yi leeral yu Souleymane Diallo ci micro Alassane Ba caméra Diafara Ba. tax na ni euh, bugul du du kuy jàmbat et que biñ ko jàppee yéen ñëpp mën ngeen firnde ni que Boubacar euh, et que bi mu nekkee si kaso bi Boubacar da kuy jàmbat man sam bopp maa ko ne Boubacar bu la dara méttee danga koy wax ñi comme ça ñu xam ko donc euh, démb si guddi euh, yaram bi dafa yëngatu yëngatu ba ñi mu nekkaloon ñoom seen bopp ñoo mujje woo ñu nekk ci biti ñoo ji jàppale leen ba ñu taxawu ko donc euh, wax dëgg yàlla administration pénitentiaire aussi jëluñ si benn risque ñu jël seen responsabilité ñu yóbbu ko pavillon spécial depuis tey si fajar mu ngi pavillon spécial loolu rek day firnde nag li ñu doon wax ni koy wérgu yaramam neexul parce que Boubacar mënoon ne du du tappalewu kaso moo tax ñuy ne wérgu yaramu Boubacar neexul li si gën a ëlëm mooy ni ko Boubacar waratul des si kaso bi ginnaaw communiqué conseil des ministres wax na ni président nee na nañ ko defal mémorandum fonds yooyu ñu muy dem te Boubacar laajte doon laajte auditu fons yooyu ñaar yooyu daanaka benn la Boubacar dañ ko war a bàyyi mu ñibbi ci mu ñibbi këram rax si dolli sax man li ma yaakaar dëgg-dëgg mooy ni que gis na mémorandum boobu pour bu mu indi benn jiixi jaaxa Boubacar sax war na mën a participer si rédaction mémorandum boobu pour ëllëg ci biir bu ko kenn contesté coowal kër yi ñu daaneeloon ca Mbour 4 extension ca diwaanu Kees yëf yi ba léegi pënd bi wuréegul am na yeneen ñeenti doomi aadama yoo xamante ne ji yoon teg na leen loxo ba ñu tëye leen ci garde à vue lañ leen di toppee wàllu njuuj njaaj ak tappale jëm ci jaay suuf ci loo amul sañ-sañ ba baa këyit wér péng loolee lañ leen jàppee Cheikh Anta Diop coowal suuf la amoon ci Mbour 4 jamono yi nag am na lu ci lëndëmoon ci xelu nit ñi waaye nag mel na ni am na lu ciy leerandi ndaxte ñeenti nit de teg nañ leen loxo ñoom sax dañ leen tuumaal ne ñoom ñoo doon dagg terrain yi di ko jaay ñu leen di toppit escroquerie ak jaay teren bu ñu tegul ci yoon mbir mi nag laal koo xamante ni ab policier la woon ànd ci ak benn géomètre ak ñaari courtier ñoom sax dañoo lëkkaloo woon ak ay boroomi tool nekk ci mburkaat doon dagg terrain yooyu di ko jaay nee nañ parcelle bu nekk ñu ngi ko doon jaayee cinq cent mille francs waaye nag biñ leen laajee nee nañ koppar yi ñu encaissé bari na lool ba xamuñu ñaata la toll toll. am na si sax ñoo xamante ne tegaguñ leen loxo ba ñu ngi leen wër. ginnaaw xibaar yi nga xamante ne am na nañu ci commission de recensement bi. dañoo ubbi woon ab bureau woo képp koo xamante ne am na acte de vente mu dikk nag ci bërëb bi bi ñu ñëwee nag lañ leen laaj ñañ ñoo leen jaay terrain yi si lañ dénoncé nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo doon jaay terrain yi. préfet bu diwaan bi nag di xamal ne kër yi nga xamante ne tabax nañ leen ba nit ñi dëkk ca kenn laalu leen waaye nag kër yi nga xamante ne tabax bi àggul wala nag door nañu liggéey yooyee nag la ñu jamono yi nag ñeenti nit ñi nga xamante ne ñoom la ñu teg loxo ñi ngi ci garde yi ñu fàttaliku ne waa Descos altine bii ñu génn lañ doon daanal kër yi nga xamante ne mi ngi féete ci forêt classée bi ci Mbourkat extension coronavirus gi tolluwaay gi ci réew mi tey ji bilan bi wax na lu toll ci ñeenti doomi aadama yoo xamante ne ji kon ñàkk nañu seen bakkan ci Covid 19 bi eh, waxit lu toll ci téeméer ñetti téeméeri doomi aadama ak fukk ak juróom-ñett yoo xam ne nemmeeku nañu ci ñoom mbas mi mu di coronavirus bi ci 24 heures yi ñu génn loolee yëf yàgg na mu tëddee juróom-ñeent fukk ak juróom-ñaar ay cas contact lañu ñaari téeméer ak ñaar fukk ak benn di ay cas communautaire lu aju ci ay grave yi muy ñi feebar bi sonal ba ñu nekk réanimation toll nañu ci juróom fukk ak juróom ñi nga xamante ne ji ñoom la docteur yi doon faj ba ñu wér tàggoog wopp ji war dellu seen i kër ba seen i waa kër docteur nee na ñu toll nañu ci téeméeri doomu aadama ak juróom ñeen fukk ak juróom-ñaar ba tey ci woyule wàll am beneen xeetu variante bu euh, Covid bu ñu gis fii ci variante ci beneen virus bi mu di virus anglais bi ñu gis ko fii ci Sénégal bu yàggul ñu dégg kàddu leeral yu bàyyee ko ci bio bi biologiste bi di Souleymane Mbuub di xamle ne benn cas bi ñuy wax ne moom lañ gis ci senegal ëpp na ko gis nañ fi ñeenti cas loole ci jamono ji nga xam ne ñoo ngi dund lu dara jarul ci deuxième vague bi ànna askanu Sénégal ban gis-gis la ñu ci am Abdoulaye Diop ak jaafara Ba doxante nañu ci mbeddi dëkk bi. tiitoon naa ko parce que xaw ma ko woon comme ni ñëpp tiitee noonu laa tiitee woon mais dem naa ba leneen laa tiit léegi ke loolu mooy boroom ruux bu tilim laa gën a tiit ke li ñuy wax coronavirus wala variant là je me retrouve pas li may def daal mooy moytu moytuloo sama njaboot moytuloo képp ko ma xam pour le reste nag moom xaw ma si lu bëri quoi parce que corona moom yéem nañu jommal nañu ëlëm nañu franchement variant bu bi ah xanaa di gën a doy gën a di gën a muslu rek di gën a muslu daal ci moom parce que mooy li ma man du sama domaine wax dëgg yàlla information moom foofu lu raw information sax ñu ngi koy am waaw information bi ça passe li fi am mooy dégg ak bañ dégg ak xanaa def lu maneer neex. bu booboo gën a garaaw bu fi fekketee bi moo gën a garaaw kon nañu ñaan suñu borom rek lépp jot nañ ko ñoom ñoo dëgër bop rajo yi bari nañ télé yi bari nañ ñëpp ngi wax lu ñu xam orchestre yi woy nañ ko. mais ñoom ñoo bañ mais rouge chaque jour day gën a yokku chaque jour rouge bi day gën a yokku kon ñun ñu ngi ci danger sunu bakkan mi ngi ci xottu gerte nañ jóg waaye polisu Sénégal fas yéene am beneen taxawaay ci xeex coronavirus bi bu weesoo di topp nit ñi ngir ñu jëfee li ñu leen sant ak di leen alamaan lam ci bëgg a dolli moo di di sensibiliser ci loolee nag tax nañu jëloon ni masque wàccoon ci mbedd dëkk bi doon ko maye def nañu ko ca Sandaga def ko it ca rond ba ci boori télévision nationale loole lépp la ko wund la tax ñu koy def ñu teewlu ci kàddu yu leeral yu El Hadji Malick Niang mooy commandant compagnie circulation police nationale ci micro Abdoulaye Diédio caméra Khadim Cissé mission police dafa yaatu ñu bëri dañ yaakaar ne mission police jàpp la ak sanction déedéet mission police di jàpp ak sanction rek am na foo xam ne sanction bu muy mujj mooy comme lii ngeen gis tey parce que dañ ne kon mbas mi mu ngi fi donc ñun lii suñu war lii lii lii lii cëru police nationale ak wareefu police nationale mooy mu participer bu baax a baax a baax a baax si lutte contre la Covid 19. donc ci kaw loolu moo tax police nationale. jël ay masque yoo xamante ni xool ñi nga xamante ne amuñu masque ñu jël masque jox leen ak di leen sensibiliser wax leen lan moo tax ñu war a takk masque parce que mbas mi mu ngi fi te nit ki boo duggee ci oto dend nga ak nit donc ka nga dendal boo takkul masque yow mun nga ko lor donc dafa am solo. que boo duggee ci oto rek wala ngay dugg ci oto jëlal boo génnee sa kër rek jëlal masque nga takk ba tax ni képp ku ñu ci gis ni takkul masque ñu waroon tey ñu waroon leen fayloo 3000 wala yooyu dañ ñu déedéet non ñun police nationale dafay def li nga xamante ni moom mooy participation ak sensibilisation mooy d'abord yëkkati masque may leen jox leen ba pare xamal leen li tax ñu war a takk masque bi. gis ngeen si biir couvre bi xëy na guddi gi boo leen doon dox da di gis koo xamante ni dafay ñëw ëmb toll ci diggante. gisul taxi gisul dara auto police moo koy jël yóbbu ko ay policiers ñoo koy jël école booli jaawo ba ca diwaanu ndar ñu fa doon jànge ba jóge fa dañ faa delluwaat ak ndimbal ndimbal li ay jumtuwaay la yu gone yi mën a jànge waaye ay matuwaay yooyu école ba dana ca mën a jafandiku ngir xeex coronavirus bi eh, ca seen dem ga foofee jaare nañ fa waxtaan ak eh, élèves yi waxtaan it ak jàngalekat yi ngir ñu fexe ba wàccantoo ak eh, geste barrière yi ñu digle ngir moytu wopp ji waaye fexe ba colu masque gi ñu faratal ko ca boobu l' école kuréel gi leen ñoom ancien élèves école booli jaawo mm, vice président ba Amadou Moustapha Sow lay wuyoo Diallo ñu déglu kook Ousseynou Diop. gën a saytu donc jàng bi ak euh, gën a jàppale maître yi ci ñu mën a euh, suivre xale yi pour que résultats scolaires yi gën a gën a mën baax. nag boole woon nañ ko ak euh, matériel bi nga xam ni ay matériel de protection la mooy ay masque ak gel parce que jamono def ko laaj te mënuñu. indi matériel rek san xalaat lool loolu moo si moo moo jiitu ci kii parce que li ñu war njëkk la santé avant tout yaay toujours une dafa am dichotomie boo xam ne dafa am entre la santé et de l'éducation ban moo jëkk mais fi ñu toll nii santé bi dafa woon nii donc elle est première donc avant l'éducation mooy li ne enseignant di dugal mooy jàppale jàppale euh, mooy euh, di respecter euh, li nga xam ne moom mooy distanciation sociale bi di respecter port donc régulier donc euh, et renouvellement du masque ah di respecter aussi donc euh, raxasu bi lu am coronavirus bi yàq lu bari ci koom-koom gi ñu bari mu yàqaleen seen i yëngu-yëngu fii ci diwaanu Ngor ci Ndakaaru jigéen ñoo xamante ne ji ñoom dañoo bàyyi lañ doon def lépp ndax gisatuñ ca njariñ dem di jàpp ci liggéeyu góor yi lu ci mel ne def ay pavage ci mbedd yi dem nag ba gis ci seen bopp di sàkku ci bu fekkente ne sax noppi nañu ci corona bi ñoom ñu seet nuñ leen du duutalee foofee ñu mën dafa liggéey ngir am ci teranga mu di loolu ñu ko xam ne ci reportage boobu Abdoulaye Diop Abdoulaye Diop ak Thierno Laurent Mendy defal nañu ko liggéeykat ñi ngi daan seen doole ci tàngaay bi ngir rafetal bërëb bile ñoo ngi ci rond-point Ngor village ci liggéeykat yi nag ay jigéen ràññeeku ci ñoom ni góor ñi du leen ko yóbbaale seen mbëbët yépp mooy ñu yóbbaale luñ mën a fajee seen soxla ñu ngi toog ci kër te dañu yor njaboot yoru jëkkër suñuy war a fay luyaas war a joxe dépense war a fay école war dimbali suñuy jëkkër daal moo tax ñu ñëw fii di liggéey mais xam nga ne lii du liggéeyu jigéen avant may lii dama doon euh, dama doon def euh, ménage laa doon def. dañoo bëgg jàppale suñuy borom kër jàpp tamit si xale yi loolu moo tax ñu ñëw fii ñu daan si doole rek. liggéey bile ci góor ñi lañ ko gën a miine waaye jigéen ñi ñoom nee nañ dañ ciy dem ba jeex. ci metti na benn liggéey metti wa rawatina nag liggéey bi ñu def nii. te liggéey bi yëkkati xeer la teg pavé da ngay dame da ngay dressé waaw il faut mu xaw a metti mu dëgg yàlla métti na trop trop trop trop bu dëgg yàlla métti na mais di suñu laneen moo tax ñu jàpp si lii tàggat biñ leen def ci liggéey bi le tax na ba ñoom ñu bëgg a def lii comme seen métier bu projet bi jeexee mën nañ ko léegi même bu beneen sañ ci amoon tamit muy Dakar muy Thiès muy feneen buñ ñu fayee loo xamante ni nii jar na ko ñun dañuy déplacé wu dem liggéey ko. bu ñuy doog a commencé fële si kaw miti woon na lool ñoom dañuy teg ñun dañuy teg di dóor marto di xoos di tuuri di def yëpp ñu ngi koy ñaan nag dañu waxoon ne fii bu paree dañuy jël ay jigéen ñu koy bale ñu ngi koy ñaan kon ñun jigéen ñi fi nekka boobu ba tey sonn na si bu paree ñu ngi koy ñaan meer bi ngir yàlla mu jël ñu si ñi la bale. maire bu Ngor nag nee na dina jàppale jigéen ñi le ci liggéeyu projet bi ci yeneen yu leen soxal. yeneen jigéen yu ñu taxaw mooy jigéen ja ca diwaanu Diouroup ca boori Fatick kuréel gii di ONG Femmes en et Environnement ñoo leen doon tàggat tàggat leen ba ñu mën a liggéey ci ndefarum saabu ndefarum eau de ak lii di fariñ la tax mooy gis nañ ne ci jamono jile daanaka dund gi xaw na doy war faw ñu wutal leen luñ mën a jàpp ba mën di lijjanti seen i soxla moo tax ñu tàggate leen noone mu di lool ñoom ñëpp àndandoo rafetlu ko leeral yi Aminata Goudiaby ca Fatick. lu tolloog juróomi fan ONG Femmes Enfance Environnement nga xam ne ci Fatick la féete ñoom nag dajale woon nañu ay jigéen ñu bokkee ci ñetti groupement yu nekk ci commune bu Diouroup tàggat nañu leen ci domaine d'activité yu bëri nee ñu nag liñ ci bëgg mooy fexe ba jigéen ñooñu nga xam ni ci dëkkukaay yi lañu dëkk mën a amal seen bopp alal ba mën a demal seen bopp. dañ leen di former ci eau de javel savon parce que. raxasu bi ku ne xam na ne eau javel ak saabu moo ko yor waaye dañ leen di former aussi ci farine enrichie farine enrichie boo ko déggee ay euh, ferñeent la am parce que dañu dafa bëri ay lu ko luñ ko composé loo xam ne au plan local la lépp fii lañ koy bayee ñu génne ko jox leen ko defar ko fabriquer ko ba def ko ci ay paquet di ko jaay te loolu dafay indi koom te mu doon loo xam ne aussi bu nu paree dañ leen di accompagner ci marketing bi pour ñu am label am fu ñu koy jaayee. crise coronavirus bi nag dafa tax ba situation jigéen ñu bëri fi mu ne gën a métti ONG Femmes Enfance Environnement nga xam ne nag dafa nekk ci ab partenariat moom ak centre d'études coopération internationale bëgg dugal seen loxo ci nu ñuy fexe ba jàppale jigéen ñooñu ba ñu jógee ci jafe-jafe yi ñu nekkee. dafa fekk ne dañu nekk ci biir euh, coronavirus mu doon lu métti ci jigéen ñi parce que activités yëpp dañu taxaw donc loolu dafay indi ñàkk di andi ndóol te ONG defee ku ko xam ak ay partenaire am da ngay xam ne moom dafay xeex ñàkk ak ndool ci jigéen ñi donc corona bi bu mu ñëwee dañu wax ne nañu renforcer suñu jigéen ñi ci wàllu économie mais nañu sensibiliser aussi contre les violences te jigéen ñi ñoo ciy gën a pâtir ay campagne de sensibilisation sax ñu ne ñoom daañu ko amal ci gox yi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci biir département bu Fatick ndaxte nee ñu crise bi nga xam ne coronavirus bi moom moo ko indi dafa laaj ñu gunge itam jigéen ñi di leen xelal ci wàllu yu bëri ndax seen gën a dal sagari nga xeeñ ci diggante mool yi ya ca Guet Ndar ak mool yi ndakaaru yi mool yi Guet Ndar yi ñooy tuumal yu ndakaaru yi ne daal dañoo indi ak sa saboté ci seenub liggéey bokk na ci seen caax yi ñuy dagg ak yeneen yoo xam ne ñi ngi leen koy def te mu mën a jur fitna moo tax ñu yëglu ngir bëgg kilifa yi wax ci bala yëfi déppi loxo Habib Faye Modou Diop. ñoom ay nappkat lañ ñu nga jóge ca Ndar ci yaraax fii lañu sànc ëpp na ñetti at saa yu ñu xëyee di nooy xetuk mbeex mi seen i yëngute napp la waaye tey ji dafa gëllu goose ndax seen yeneeni moroomi nappkat yu faree fii ci dakaar ñoo leen ko teg. napp ci géej gi bu ñuy napp day am ay gaal yu ndaw gaal yu ndaw yoo xam ni dañuy ñëw di heure bu nu soobee sunu mbaal yi si géej gi ñu ñëw di taf mbaal yi di dagg mbaal yi di yàqal. mu doon ay actes yoo xamante ni nappkat bu baax waru ko def. parce que nag lu ëpp tuuru te wax dëgg yàlla. ñun li ñu yore nii ay million la te ay famille ñoo ko ñoo ko amee. gaalu Ngor Yoof Kayaar seen gaal ñoo koy def te xam nga géej su ko ñëpp bokkee kenn ku ne war nga war nga sàmmonte fexe ba bul yàqal sa moroom ku nekk jël sa wërsëg si géej nga dem si yoon. xam le li ni mel moonte de lañuy jëfandikoo di caaxi cher na lool. nit ñi dudul seen wërsëg ñu leen di yàqal seen baal di dagg seen baal di nangu seen mbaal di nëbb ñun daaw jéeg rek nangu nañ fi suñu mbaal lu nga xam ni 4 millions ba pare noonu lañ si tëddee. yow valeur bu 3 ñu ñëw dagatee ak benn bi rek dem nii nii ci ay ay morom moo ñoo koy def. kër ak i ñoñom ne bëgguñu benn coow ci biir géej waral na itam jàmm leen soxal. ndax tey ñi ñi koy def ku ci def bis nga daw ñu dàqale sa sa moteur fay mën na indi xeex. boo xam ni état boobaa ma mën na bañ a xam fa la yem. waaye teewul ñuy ñaax autorité yi ñu wax ci te des nañ porter plainte. ndax euh, état li ko tax a jóg mooy mu di prévenir mais boo prévenir euh, guérir état bi la bëgg parce que ñëw naa leen daanu porte plainte déposé au niveau procureur dégg nga boo see yéenu am ni comme preuve su ko fee état bi mën ci ay mesures. ci jamono joo xamante ne mbas mi mi ngi lëmbee àdduna wërngal këpp koom yépp daanu ñoom nappkat yi nekk fii ci diwaanu yaraax jóge ba ca ndar la ñuy dund metti na la ko waral bokk na ci càcc gañuy càcc la ñu jot a napp ba noppi. Idda Mouride ma nga ca département bu Koungheul am na benn camp militaire bu ñu fa bëgg a tabax teg nañu doj u njëkk yi mu doonoon ci teewaayu kilifa yu bëri ñu ràññee ci chef d'état-major général des armées liñ jublu mooy gën a yokk kaaraange ga foofee askan wa rafetlu ko bu baax a baax ndax nee nañu daal dana gën a tax sax kon développement bi ca boobu li diwaan gën a mën a yaatu yokk teg ci Moussa euh, ñu ànd ceeg Seydina Oumar Ndiaye ciy leeral. ci teewaayu gouverneur bu Kaffrine William Manel ak yenn kilifa yi ne ci gox boobu la ñu amalee xeexoo bi la ñu amalee tegum xeer camp militaire bi njëkk ci diwaanu kafrin ci njiitalu général Birane Diop ñëw ci solos camp militaire bi lii. tey jii ñu ñëw pour poser première pierre camp bi nga xam ni moom la ñuy mu ñuy sanc fii ci Idda Mouride di sécuriser parti Sénégal bii nga xam ni moom la ñu bokk ak ku Gambie bi tamit. dina mën a permettre liggéey bi gën a yomb diggante unité yi nga xam ni ñoom ñoo nekk Tambacounda ak unité bi nga xam ni moom moo nekk fi mu ne nii Némandi bu boobaa sécurité Sénégal ak sécurité population yi dina gën a dëgër. su weesoo njëriñ li mu làmboo ci wàllu kaaraange camp militaire bi dina tax gox bi gën a soqali ko ci wàllu koom-koom. comme ni muy wax da ngay nelaw ba yandoor waaye di nga mën a aussi di investir sa xaalis di mën a jëriñu te kenn du la noot kenn du la ba lépp loo xam ne dépensé nga ko ci sa wàllu koom-koom muy tasaaroo bon boog économie je pense que loolu bu ñu ko doon xayma fii ba suba donc bu ñuy wax ci rentabilité sociale ci rentabilité économique tey jii yaakaar nañ ne camp militaire bi li ñuy andil romb na sunu njor liggéey bi nag toll ci juróomi téeméeri million ci sunu koppar waaye ñu war ko xayma mu war a noppi ci diirub juróom benn weer bu ñu sukkandiku ci kilifa yi. légion gendarmerie est bu Tamba ak Kédougou defub liggéey bu am solo ci diwaanu Jànqe Maxaan euh, foofe ay doomi aadama toll ci ñett la ñu teg loxo dee nañu dëkkun nag ci réew mi ay gan la ñu fi waaye jàpp nañu leen ñu jàppe leen nag ak ay ëkki garab yoo xam ne daggoon nañ ko ba bëggoon koo sàkkal pexe Moussa Omar Gueye di ñu cëndali leera depuis jafe-jafe yi amoon ci bofa Bayotte zone sud bi muy Ziguinchor ak li ko wër dañ fa tere lépp lu jëm ci wàllu exploitation ressource forestière muy garab yi ñuy dagg ak yeneen yoo xam ni daf ci jëm ba tax nag diwaanu Tambacounda tey ji rawatina zone bu bundu diggante jànke maxa ak li ko wër daanaka ñoo gën a am ay jafe-jafe ndaxte nag waa gendarmerie national sax jot nañ fa teg loxo lu ëpp ñetti téeméer ak juróom fukki tronc d'arbre yoo xam ne dañ leen dogate ba noppi. présentement ñi nga xamante ne jàpp nañ leen enquête bi mi ngi continuer ah qui est chapeauté par l'adjudant-chef jallo donc euh, bu clôture bi bu ñu clôturé PV bi après ñoo ñooñu nga xamante ne jàpp nañ leen dinañ leen jox euh, tribunal bu nga xamante ni loolu mbalum atte la pour ñu atte leen euh, par rapport ak tronc bi yi ngeen di gis nii yooyu dañ koy jël ñu jox ko le l'inspection régionale des eaux et de de Tambacounda. ak ñaari tronçonneuse ak benn velo ak benn moto. inspecteur régional des eaux et forêts muy commandant Mamadou Gueye di rafetlu liggéey bi nga xam ne def nañ ko ba ci jamono ji jafe-jafe yi ñu daan am ci wàllum dogum garab ci Maka Koulibantang ak daanaka foofu wàññeeku na. gendarmerie nationale moo ko def ak eaux et forêts du guleen parce que Maka Koulibantang également defoon nañ ko fa di xeex gaa ba tax ñu jóge fa daw ñëw song si fii mais fii aussi di leen fi bàyyi noonu danañ de la région de Tambacounda. teb commandant Mademba Yacine Ndiaye chef d'escadron bu gendarmerie ngir askan wi jàpp ci daanaka nekk na loo xam ni Ibrahima Ba mi wax ci turu comité bi xeex lépp lu jëm ci wàllub daay yi daanaka ñoom ànd nañ ci nee ñu danañu gunge bu baax a baax force de défense et de sécurité yi ci lépp loo xam ne am nañ ko ci xibaar ngir aar lépp lu jëm ci alam bi. lépp nag daal di am ci diggante commune bu Diankémahan bu Komoti bu Bani Israël ak bu Tukufara. waxtaane wàllu tàggajaram ak euh, Ligue 1 fii ci Sénégal football la juróomeelu bëccëg bi Euh, ki nga xamante ne ji moo di douane dafa duma jàmbaar benn bal ci dara donc jàmbaar am defetam bu njëkk euh, beneenu match bu ñu football tey ji diggante Dakar Sacré-Cœur la ak Pikine foofe ndam demul dikkul kenn dugalul sa morom euh, ñeenteelu bëccëg gi match ngi bopp dinañ ko ci xaar muy match bu ñëppi bàyyi xel suba ci dimanche ji ci la ñu koy football wara dox ci diggante Tëngéej FC ak Jaraaf. ba léegi ci wàllu tàggat yaram waaye ci beneen fànn mu di suspendre gi nga xam ne defoon nañ ko Ahmad Ahmad loolee dañu ko tegandi ci suuf maanaam provisoirement tribunal euh, arbitral sport moo ko def moom Ahmad Ahmad doomu Madagascar nag ak dellu siem euh, doon candidat ci euh, kan mooy jiite kaaf loolee dese naa wér bu ñu sukkandikoo ci kàddu yu bàyyee ko ci taskatu xabaar bii di Abdoulaye Thiam teg na ci it ne daal même suñu waatoon sax gisul loo xamante ne ji mën na ko yàqal candidature Augustin Senghor Maître ñu déglu ko moom Abdoulaye Thiam ci micro sadi bu jara donc moom moo ñaanoon nañ jël ay mesures provisionnelles mu laaj ko pour mu permettre ko mu mën a bokk ci jongante bi nga xam ne kaaf mu ngi ko war a am le 12 mars loolu nag la ko euh, tas nangul parce que tas bu ko ko nangulul mu war a vide nag euh, euh, li nga xam ne boole na ko ak chambre boobu supposons par exemple mu vider ko mu jox Ahmad Yahya dëgg dafay créer Ahmad Yahya benn préjudice boo xam ne ñeneen naataangam jongante yi mu war a jongante ak ñeneen ñi day fekk raw nañ ko loolu moo tax nag léegi ñu suspendre ko tekkiwul nag parce que wax nañ ko sax système bi kii bi tekkiwul loolu dina dul tekkiwul ne Ahmad léegi dañ ko réhabilité maanaam ko dañ tranché tranché guñu maanaam dañu suspendre décision bi di xaar le wala le trois mars incha allahu rabbi ñu jël seen décision définitive su fekkente ne dañu confirmer li nga xam ne chambre de jugement commission d'éthique bi def na ko loolu Ahmad du mun a bokk su fekkente ne nag euh, euh, euh, dindi dañ ko dindi dañ ne Ahmad Ahmad li ko toppee ci tuuma loolu yëpp amul loolu bu boobaa Ahmad day duggaat ci course bi bu duggee ci course bi nag conséquence yu ñu naaram am ñu ngi wax Augustin Senghor dégg la Ahmad bokkoon na ñoo xam ne bokkoon na si ñoo xam ne poussé na Augustin Senghor pour mu poser candidature am mais defe naa moom bu duggaatee ci course bi ku mu gën a nar a indil problème c' est plutôt Motsepe parce que Ahmad ci zone Kosafa la bokk te Motsepe tey jii nii moom dong moo nekk candidat bu bokk mot mu bokk ci zone Kosafa donc zone Afrique de l'Ouest bi mu am ñett candidat donc y' plus de conséquence y' plus de danger danger pour Patrice Motsepe ku pour maître Augustin Senghor ay xibaar dina dellu si ci télévision Futur Média 20h ak Cheikh Tidiane Diawo fii la ñuy yem gërëm leen ci li ngeen àndee ak ñun di ñaan yàlla mu dolli ñu jàmm ñu fanaan jàmm.